assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ahmadu kalaasi la jaamu sëriñ tubaa xaadim rasul yéen sama sang yu tedd yi sama sëriñ si ak saa bokk yi ñu àndandoo ñëw ci bis bu tedd ngeen doon fi ay sëriñ man ma dëkk fi ndax sëñ Abdoul Aziz sëñ Mor Diouf Yatti ak sëñ ma paat seenu bokk yàgg na seenu ànd yàgg daanañ da nekk sëñ Tuubaa ba tey may wax nag ne wax loo giñ may wax loo may wax bu dul woon ndigal du wax ndax fii du fi dal li ma baaxoo wax ma tàmbaliwaat ko waxaat ko rek dajab murit lu ñu bari bari ñaari sëriñ tubaa mënu fa am ñetti sëriñ tubaa mënu fa am lu ñu bari bari bari benn sëriñ tubaa rek moo fa mën a kan moo fay sëriñ tubaa ki fi mag tey jii ci jataay bi te te bokk ci sëñ tubaa benn sëñ tubaa rek moo fi am may wax ne nun danoo bëgg a jox sëriñ tubaa cëram lu ko waral fa mu teg muhammadu rasulullahi moom sëriñ tubaa xaadim rasul lu ko waral añam bi rek añ bi waaye añ bi li muy rëy rëy rëy ba mu koy sàkku bu fa bakkanam doon des des fa kenn mayu ko kenn sarafu xoolal fa mu tegoon muhammadu rasulullahi nekk na fi barab di tagg muhammadu rasulullahi seen maam di tagg Muhammad moom Serigne Touba di tagg Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam cim néeg boo ko joxee kayitu xaalis kayit du ko laal day wax tegal foofu boo ko joxee paset day wax tegal foofu day mujj kayit yi ay naaf lay def ci néeg bi paset yi ay jàll mu gas ba mu xóot mu suul day gas ba mu xóot mu suul xaalis waaye am na bis muy tagg muhammadu rasulullahi ba mu yàgg këyit këyit gi muy tagge muhammadu rasulullahi benn porox dollu am ci néeg bi di naawal këyit bi ci lay soog a def bëri di def ci këyitu xaalis bi nëq di def ci bën bëni néeg bi noox di ko sakke bën bëni këyitu xaalis bi lay jël këyit bi di ko sakke bën bëni néeg bi am na ko fa nekk daldi muuñ mu ne ko looy muuñ mu ne ko ak mbàkke wuuteeg yow xalaat ci lii rek Sëriñ tubaa ne ko naxam ñoo ci yem xalaat ndax lu ci waaye am lu mu bari bari fàtte buntu rek la koy doyee kon bunt bii bëgg a yàq li may liggéeyal Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn buntu gënu maa joor ci fatt ko Sëriñ sëñ ma jëng Balla Jëng Faal yi ñawal na ko mbubb xaalis bu ko lew day jàpp soo jàppam tojee mu jàppaat ba yëre yi egg mu indil ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul seen maam loo mos a jox Serigne Touba ci ay yére da ciy laal ndox waaye lépp ay waxaat moom bi yére yi egsee da koo sol lu mus ta def ma ngay natt mbubb ma nag ba mu yàgg loxoom dugg fii ca jiba yi te booba nag xewagut day soog a xew mu ne lii luñ ci jublu am ko fa nekk ku mel ne sëñ Abdou Assis soxla mbubb ma ne ko am ah, Mbàkke noonu ne bu doon nun suñ amee sunu dërëm suñ amee sunu dërëm ci lañu koy denc mu ne sumeet mbubb ma daal ko ne taxañ taxañ taxañ daal ne xër ma dal ne yàlla yàlla musal ci jiba ah jiba tolloo naa ko xol boo ci defee dara taxaw sa digg ak sa borom mu yëngul yëngu leneen nekk fa loolu sa borom yàlla nu yàlla musal ci jiba sëñ Tuubaa ngoon sëñ bi dajale leen seex yi lin sëñ Tuubaa defal waxuma mbàkke mbàkke yi seex yi xool leen lin sëñ Tuubaa defal si jaxate njaay faal juuf ak sant wu mu mën a doon sëriñ tubaab lii la ca def lan la ca def koo ci dajeel ci nun mooy xëy di dem dugg ci otoom nga ne ko taxawal mu taxaw nga ne ko loo rafle di ko ci du ko xam kenn ku ne dafa juddu fekk lu nit di am ci xeet teraanga sëriñ Tuubaa fàggu la lu nu war a fayee sëriñ Tuubaa te añ bi li muy rëy rëy boo nu dajale woon nun ñëpp boole naa ci ñëpp wut sa war a tegal nu fi suñ wet kenn ko ne nga di ko laaj ndax añ bu rëy bii ngay añ ndax ak joo jox yàlla moo fi bàyyi añu kër maam diw ku waat la boo dajalee dinu laaj ndax Pastef bu ngeen am seen digg ak Serigne baax bu rafet moo fi bàyyi añu kër maam diw ku waat la koo ci ne ndax sa jaamu yàlla gu mat sëkk moom la la yàlla ruse ba bàyyi fi añu kër bi nga boo ko waatee la ñi mel ne man sax dañoo def lu yàq añu kër yi bu doon yàq def nañ lu yàq añu kër yi sëñ Tuubaa yor ngoram gi nëbb ci suñ ngoreet gi yor matam gi nëbb ci suñ doy waar bi kër gu ne la fa ne woon mun ko dolli guddi di ko dolli bi lu war a fayee sëriñ Tuubaa nekk jaamu sëriñ tubaa rek akub taalibe ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen wax ne nun ak ñi woote dun dara ci yéen lu dul jaamu seen jaam kese la bëgg noo doon dara lu dul seenu jaam sëñ bi yónni ma nag boole ma ak doomam yi yu baax yii nga xam ne kenn ku ci manqué sëriñ bi amul ma xam leen lool nu juddoondoo yaroondoo ma xam leen lan la ci jublu la boroom daaru doon jàngale rek ci la sëriñ Bass Anta nekk boroom daaru dafa woo sëñ Modou Awa Balla mu ñëw toog mu di ko ko Modou kaay ma jàngal la àdduna mu jege si ko lam ko njëkk a jàngal def ma ne Modou mu ne ko Mbàkke mu ne ko ñéeng ak fotti baaraam bokkut ci sëriñ loolu la borom daaru njëkk a wax sëñ mu doo bàll bi mu koy jàng ñéeñ ak fotti baaraam bokkut ci sëriñ moodu mu ne ko mbàcc mu ne ko loolu kese fayut bor looloo nu fi indi loolu kese fayut bor mu ne ko loolu loo ci jublu mu ne ko moodu ku la bëgg-bëgg ku la yëg-yëg ku la teral fay ko teraanga ji waaye lu la waaye defal lu mu rëy rëy bu tàllalee loo xam nga tifli ci aw lool mel na fay nga bor ba mu ne ko déedéet lool du ak sëriñ ak yaafus ku la bëgg-bëgg ku la yëg yëg ku la teral fay ko teraanga ji soo ko jox la loolu moo fi indi sëriñ bi ak njabootam bi sëriñ bi ku leen ëpp amul ci yoonu murit man maa ko wax ndax maa leen xam ndax lii maye ba li li nga xam ne ci lañu di jaar ba rëy sëñ sëñ juuf jàtti jaar na fa ak sëñ Modou Diouf muy Serigne Touba kenn ku ne nag la la yàlla defal da nga koy téye ba tax na bis bii man sama ñaanu bopp di leen ko ñaan lu ngeen ko fonkoon nan ko doon te man bokk naa bis ni ko tey ana sëñ bi ki ki yore daayira bi kan la sëñ Moustapha nañ ma bind ci daayira bi li tax ma di ci bëgg a bokk nag xam naa ko lu àdduna bokk bàyyi naa àdduna taxut may wax damaa xam kër gi xam li ma ci bokk boole sëñ bi nag jox ma ab yan yan bu diis ndax man damaa defe ne bu doon tànn ku yées ci yoonu murit mën nañ maa jël teg duma ma dara sëñ bi jiital ma ci mbooleem seexi Daaru Muxti ñu ma gën ne ci saay bàyyi ne ci samay mag ne ci sa ñu ma gën ci wet gu na nekk Daaru Muxti loolu sëriñ bee fab rek def lu ko soob waaye ñépp a ma gën kon lu ñuy woote di ci woote borom daaru bu ma sëriñ bi yebalul woon sax su ma ko yëgee ñëw waaye sëriñ bee ma woo ba ma ñëw mu ne ma àndal ak ñii kon nag bés bi sun bisa wasalaamu aleykum wa